rek ngir xeex boobule feebar dëppoo na bu ko defee rek ñu gën a yaatal gannaaw 20h bi xibaar yi it ci wolof ak rédaction bi dinañ fi teew ci kanam a kanam lay doon bu ko defee ñu xam li gën a fës ci bés bi pàcc bu njëkk bi ñu jagleel ko soxna yi xam ngeen ni démb mooy bés bi ñu jagleeloon jigéen yi ajjuma nag jotoon nañ ci brosse lenn waaye dina baax ñu taxawaat gën a yaatal ndax jamono ji gis nañ ne ci bés yi weesu rek ñu nemmeeku ci ab soxna boo xamante ne faat du ñàkk ñu gën a yaatal ak ki nga xamante ne mooy suñu gan euh, teew fi euh, di euh, madame Penda Seck Diouf nekk présidente bu comité de lutte contre les violences faites aux femmes teew fi ci plateau bi du ñàkk ñu gën a yaatal rek na ma ko waxee sànq ci pàcc boobu waxaale it leneen lu am solo mu di loi bi ñu jagleel lii di xeex mu viol ak pédophilie ci Sénégal naam bu dee am na ñu ko rafetlu ci jigéen yi nga xamante ne ñu ngi xeex a ngi ñu sàmm ak jigéen yi waaye am na ci yenn ci ay acteurs yoo xamante ne am nañu jiixi jaaxa ci boobule loi nañ ko tëralee loolu it dinañ ko aborder ak moom soxna si ñu ngi lay ziar madame Diouf. waaw ah, di leen nuyu leen euh, di kontaan ci invitation bi. jërëjëf euh, lundi bu jot ñu ànd ak euh, papa Djibril Fall. Mhm, waaw papa papa foo nekkoon ba gisuñu ñu la jàkkaarloo balaa ma laa nuyu. maa ngi lay delloo nuyoo bu baax Aram. di nuyu Sénégal yi ñuy seetaan si biir réew mi ak si bitim réew kontaan trop si jotaay bi. jàkkaarloo foo nekkoon di nuyu di sunu gan bi. wuyu woo ma de jàkkaarloo foo nekkoon. aram doo def sa émission. <laughs> waaw damay laajte. <laughs> ni ngay tërale sa gan. non invité bu vendredi de la laajte te ñu ne dangay ñëw jàkkaarloo ci ñun lu ñu jàpp te gisuñu la fan nga nekkoon. j'étais en back office. waa comme nangu woowu yi garaawul alors dinañu euh, ñëw euh, ni ñu ko waxee sànq ci yeneen i ponk ci wàllu actualité euh, bu ko defee ñu njëkkee la doon wax sànq fële ca Thiès Mariam Diagne nekk ab étudiante ñu buum ko la mu xam ne nag moo xew ca mbir ya naam bu dee jamono ji mi ngi ci loxo yu yoon waaye lañ ci joto dégg rek mooy li nga xam ni ñu bëri fës na ci mooy ñaaw lu anam yi nga xamante ne moom lañ ko boomee du ñu am nag ku mel ni Penda sekk jouf fii ci plateau bi te du ay kàddu jëmee ci loolu euh, soxna si euh, xew-xew boobu noonu nga dégg ko ci la nga xamante ni yëpp yéen a koy def euh, ngir xaar pour ak jigéen yi lan la lay def. di ko condamné rek ak di ci di waaru di ko condamné fermement ak di wane suñu métit ci loolu ndaxte bu fekkoonte ni nag fi ne mi ngi bëgg a bëri nag. Mhm. ndax xam ngeen ne at mi ñu génn rek. waaw ñu ngi doon wax rey yi nga xam ni moom la ñuy rey jigéen ñi. Euh, fukki jigéen ak juróom entre janvier et décembre 2019 ñu am ko ci euh, ñaar nekk ci woon jigéen ñu nga xam ne sax dañoo ba noonu la nekk ci euh, ñett ñu nga xam ne ay mineur lañu ñu nga xam ne ñu ngi amoon diggante ñett ak fukki diggante fukki at ak benn ba fukki at ak ñeent ba ñu taxaw ba nga xam ne si am nañu loi ba nga xam ni sax dafa criminaliser le viol et la pédophilie ñu ñëw Euh, at mii moom ñu ko commencé ñun defoon nañ ni loolu kat fi ñu ne dinañu xaw a tàggoog moom tuuti waaye at mi niñ ko commencé it neexul ñett ñetteel baa ngi noonu de ñetteelu jigéen a ngi ndax ndax du euh, plan bi ngeen teg walla stratégie ngir xeex pour ñu sàmmoo ak jigéen yi moo moo moo nekkul euh, loo xamante ni efficace na xëy na fa ngeen di waxee fa la ñu déggeewu ban plan ak ban stratégie wax kay loolu lañ ca man am it ay loi ñu appliqué koy moo ci des ak euh, leneen li moo di ne nit ñi it euh, nga wax lu am importance moo di ne war nañu sensibiliser bu baax ci loi yi pour nit ñi comprendre ko mm-hmm. ndaxte kat bu fekkonte ne ay stratégie ñu teg wala wax ñu teg loolu moo tax sax ba loolu amul sax ñu ne wala mu yokk sax nga di tan waaye du loolu dañu gis ni malgré sensibilisation bi malgré loi yi malgré yépp nit ñi ñëw di def yu demee noonu dañu ne am na lu nga xamante ni war nañ koo seet nag ci suñu société bi. oui waaw damay commencer di leen jaajëfal ñoom ñi nekk ci <clears throat> combat boobu nga xam ñëpp lañ koy defal ndax xëy na ku nekk rek euh, tànk moo ngi dal keneen danga naan du agsi ci man. Mm-hmm. waaye personne n'est à loolu mooy euh, lu njëkk li leneen li mooy di jaale waajuru soxna si Mariam Diagne ci Thiès. yoo xam ne lu métti la ndax boo jëlee sa doom di lu ci moom. ba mu toll foo xamante ni xëy na war na mën a jëriñ dara ñu jël bakkanam lu lu métti la euh, waaye ni mu amee cas mel noonu bees métti am na yeneen yu fi jaar yoo xamante ni tamit noonu la méttee mais soxna si li mu wax léegi dafa am solo dafa wax ne dañu war a sensibiliser ci loi yi mais bala ñuy sensibiliser ci loi yi sax information bi dafa war a jàll ba pare dangay ngay informer ba pare mm. ci ginnaaw nga topp ci di sensibiliser avant ngay def li nga xamante ni moom mooy répression mais problème fondamental bi ñu am mooy ni ñuy nase suñu loi yi ak ñi nga xamante ni ñooy nas sunu loi ak fi nga xamante ni foofu la ñuy nase sunu loi ndax loi boo xamante ni euh, xëy na làkk bañ koy bind du làkk bi nga xam ñëpp xam nañu ko loi boo xamante ni terme yañ cee utiliser xëy na un jargon technique lay nekk boo xamante ni duñ ko mën a faram-fàcce ba nit ñi mën si jot euh, ni ñu boo xoolee réew yu bari léegi dañuy am ay télévision ak ay rajo parlementaire mooy li nga xamante ni ñoo ngi koy def ci assemblée nationale bi dañ koy def ay direct mm. yoo xamante ni ci rajo ak télévision boo xamante ni parlement bi moo koy moom pour toucher le maximum de population waaye leneen li xamante ni raw nañu ci aussi ba tey mooy le travail bi nga xamante ni parlementaires yi dañ koy def dans les circonscriptions ànd ci ak ñi ñu ci war a ànd pour que la ñuy nas foofu projet de loi yi ñuy am nit ñi mën cee jot bu baax approprier ko bu baax xam ne ñooñu lañ koy defar malheureusement on a des députés qui qui diront de plus en plus dakarois que seen circonscription sinon bu ñu demee circonscription circonscription ci yeneen la ñuy nekk lu dul naan dañuy sensibiliser wala ndax dañuy waxtaane projet de loi ba ñuy jël fale nga ñëw def ay séance plénière yoo xamante ay fora populaire yoo xam di nga ko waxtaane on a on a ce problème là moo tax li mu wax dafa am solo ci wàllu élaboration des loi ak ni nga xamante noonu la ñu koy tëggee maintenant li nga xamante ni moom moo ci am aussi mooy dafa am aspect boo xamante ni mën nañ ko yóbbu ci côté boobu mais aussi dafa am affaire boo xamante ni problème mu société la. mooy problème mu famille institution de base boobu problème mu ni nga xamante ni xëy na noonu la ñuy socialiser nit ñi parce que boo xoolee rey yu ci bari surtout yu mujjee ñëw ni en date le matériel est au cœur du dispositif le matérialisme à outrance bu nga xamante ni tey wax dëgg fa yàlla euh, je pense que ne. Euh, musiba bu bari bu ñuy dal ci suñu société xëy na fi ñu yóbbu matériel ak fi ñu ko teg moom moo koy indi boo xoolee fan yii yëpp li ngay dégg yëpp ba saa boo xoolee ba ci biir rek wàllu alal day nekk ci biir malheureusement je pense que aussi les familles ont une grande responsabilité dans ce sens là et su ma nee les familles rek je fais allusion à tous ces acteurs non étatiques yi nga xamante ni dañu nekk ci ci ci ci ci biir société bi muy euh, chef de quartier muy délégué de quartier parce que Aram gis nga bëri woon na ay figure emblématique yoo daan fekk ci biir koñ yi ci biir quartier yi mais médiation pénale bu baax a baax lañ doon def médiation sociale bu baax a baax lañ doon def di désamorcer yenn yi di gis yenn yi di ko dànkaafu ba nga xamante ni le pire du am parce que lii yëpp di xew souvent parce que nee nañ crise Mariam Diagne bi ñu rey wax nañ ne plainte sax jotoon na ci am jotoon na déposer peine donc c' est l' aboutissement souvent d' un dañ koy gis muy ñëw te donc est ce que tey ñun am nañ ay institutions yoo xamante ni dinañuy préventive ci yu mel noonu prévention mooy li nga xam ne sii nag moom daf ci am solo trop waaye bala may ñëw yow ci prévention boobu damay dem ak yow tuuti ci li nga xam ne danga ko wax mu am euh, maanaa torop moo di ne ndax xam nga dañu ñu ne censé ignorer la loi mm. waaye bala nga koy ignorer kay fa nga xam mooy ah, la euh, dëgg la dañ koo bind ci làkk bu nga xamante ni sa làkk ak yooyu mm-hmm. mais loolu moo tax ba nga xamante ni si Euh, ñun suñu organisation yi dañuy jóg di dugg ci gox yi di sensibiliser nit ñi ci lu jëm ci loi yi nga xam ni dafa porté ci violence basée sur le genre mais booy xool aussi euh, man damay sant parlementaires yi fenn muy ci loi bi nga xam ni moo mujj ñëw muy la criminalisation du viol et de la pédophilie ñoom ñu ngi ci fi mu ne nii ñu ngi ci gox goxaat yi ak fépp di ci sensibiliser ak di ci wax laataa ñuy teg loi yi taxaw nañu di ci wax di ci waxtaan ak di seet processus ban la ñuy jaar ak yan stratégie la ñu war a teg ba nga xam ni loi bi dina nekk loi bu nga xam ni bu ëllëgee dina taxaw pour taxawal askan bi dëggantaan en terme de protection ak yooyu mais ñoom bañ ci jógee ba nga xamante ni si euh, promulgué nañu loi ba pare ba nga xam ni taxaw na 20 20 05 du 10 janvier 2020 ñoom dañoo dugg ci gox yi da ngay gis ay parlementaires yu nga xam ne gis nañ leen ñuy nekk ci gox yi di def ay sensibilisation gis nañ leen ñu koy def euh, di sensibiliser ci loi bi ak di ci yéen yi ñi ndax boobu loi dafa nekk nag une loi très forte ñun ñi nga xamante ni si ñun ñoo nekk ci comité lutte contre les violences faites aux femmes ak euh, man euh, maay présidente comité lutte contre les violences faites aux femmes mhm. mais aussi maay présidente la synergie des organisations mhm. pour l'élimination de la société civile pour l'élimination des violences basées sur le genre cinq organisations de la société civile lañu. da ngay cumuler mandat euh, nga xamante ni si fu ci nekk ñoom ñu nga fa nekk. Mhm. Euh, di sensibiliser. Mhm. ak di wax nga violence basée sur le genre yi naka la mhm. demee. ak sax naka lañ koy teggee ak yan stratégie lañu waa dem ànd ko nag. ak euh, di euh, bàyyiwuñu kenn en rade mm-hmm. chef de quartier euh, mm-hmm. les autorités mm-hmm. religieuses les autorités coutumières les leaders communautaires les leaders éducatifs képp ko nga xam ni si yaa ngi am voix te nekk ci population bi eh, aram am na lu mu wax lu am solo et eh, soxna si foofu aussi je pense que ne toujours dans la prévention la typologie des violences tamit dafa am solo très parce que souvent bu ñu bu ñu rayul rek ñun on parle pas de violence te am na ah. yeneen xeetu violence yoo xamante ni dañ koy gis muy ñëw di raam di direeku ba agsi ñax bi far am fa kër. soo moytu sax yooyu. Mm. ñooy indi këru rey googu. Mm. xam nga violence boo koy jàpp violence basée sur le genre juróomi fànn la. Mm. mu am na ci nag yu nga xam ni dañ caa yokk fi mu ne nii ñu koy gis. Mm-hmm. benn violence physique. gis nga téeméeri violence yoo jël causer blessure muy euh, causer blessure. Mm-hmm. violence mm-hmm. nekk na ca juróom ñaar fukk ba boo xaajee téeméer euh, juróom ñaar fukk ba moom la. nga ñëw jël violence morale et psychologique maanaam jël rey la ci sa xel. Mhm. ba nga xam ne yow dootoo tekki dara dootoo xam dara gisatoo dara. déggatoo dara ñu wàññi la ba nga xamante ni yow doonoo sax doonatoo sax nit gis nga boobu violence xeetu violence boobu moo gën a metti ñun liñ ciy recevoir ci violence yooyu kenn mën la wax ni mu toll mm-hmm. te boo xaajee téeméeri violence yoo xaaj gis nga moom violence morale et psychologique boobu nekk na juróom fukk ba ak euh, juróom ñett lan mooy explication yéen ci seen gëstu lan mooy explication nga jël xaaral ma waxal la violence yi nga xam ne yow yaa ko def yaa ko wax ba pare mm-hmm. euh, euh, benn bi mooy xam nga violence sexuelle mm-hmm. ñu gis ko nag mu gën a metti te violence sexuelle bu ñu doon wax ni vedette wala star da caa am bu njeboon teg ko viol viol moom dafa nekk lu nga xam ni moom raatale na moom mais violence sexuelle jéggi na viol a ah, nekk na euh, yeneen yu nga xamante yeneen xeeti làmbutu yeneen xeeti àndandoo yeneen xeet yu nga xamante ni dafa am njeexital ci euh, foofu noonu mm-hmm. mais boo ci jóg gis nga kooku moom téeméer boo xaaj ba bàyyi juróom fukk ba ak ñeent moom la viol nag moom da caa romb moom ñépp nga pare ci dem ci violence économique violence économique bi ngay wax nii xam nga yaa ngi tudd ba tudd famille ba tudd noonu naan lan moo ko indee la mbiru xaalis ak yooyu violence économique violence économique rawatina na ci jigéen ji sax far nga xam ni da ngay xëy dara doo ko yor ñi mën laa nax mën la naxe ñaar dërëm ñetti dërëm sax mën nañ la cee naxe parce que yooyu yoroo amoo làmboo làmbaluwoo xam nga kooku dafay daal di nekk lu nga xamante ni kooku pour nga ñëw euh, violence am foofu dafa daal di dafay daal di yomb. Mm. nga abandonné rek doo dundal doo wodd doo sànq doo def nenn jigéen ja nekk nu nga xam danga nga abandonné rek xam nga kooku euh, violence dafay daal di nekk. Mm-hmm. beneen ba nga xam ne nag moom ñun ñëpp ñu ngi koy vivre te nga gis ko teg ci bët ba tax nga dul sa famille la violence conjugale. violence domestique yi et de plus en plus sa commettent avec des armes. ou avec des objets familiers. ci wala euh, euh, euh, mbirum arm ah, ak wala sax ay lu nga xamante ni si ay gànnaay mhm. yu nga xam ni mu ngi ci kër yëpp xam nga kuur paaka jaasi fiil yooyu danga koy fekk ci kër yi kër gu nekk da nga ko cay fekk. ba ci ceeb yooyu yenn saa yi cunwaar de. ak fañ la koy defee nag am na xam ne buñ la ko defee ci bi ngay fekk cunwaar bu loolu loo fa doon def ba ñu ba loolu yëpp arrivé la. da ko doon jàppale rek xëy na rien ne justifie la violence. exactement dara nag aucune tradition aucune religion euh, les violences. parce bi am tamit si si cellule familiale. dañ doon am ay kër yoo xamante ne mag yi daan fa nekk di encadré et mais léegi dañoo dëkk si société boo xamante ne ku ci nekk day jéem utal boppam ku ci nekk day dëkk à part nekk foo xamante ne xëy na conseil ya ngay soxla pour ñu accompagner doo ko am parce que da ngay demal sa bopp. lu am maanaa ngi noonu mais gis nga loolu tamit du prétexte xam nga euh, fi mu ne nii nekk nañu suñu dëkkuwaay yi xoolal ni mu mel. Mm-hmm. xam nga ni mu daan demee nga nekk ci concession. wala bu dee séeréer nga nekk ci mbind man waa wàccee saa kayoor man moo tax maa ngi jaale bu baax euh, Mariama li ñu ko def metti na ma trop. Mm-hmm. daf ma laal doublement parce que Médina Fall googu dama ko xam. Mm-hmm. xam naa ko bu baax man cees laa dëkk ba pare loolu am mu nekk étudiante teg ca xale bu nga xam ni plein d'avenir quel que so amul dara lu mën a justifier tey li nga xam ne tey def nañ ko ko mais bu njëkk ba xam nga da nga daan nekk ci kër gu nga xamante ni si day yaatu ñëpp nekk fa léegi xam ngeen ne dëkkukaay yi ni ñu mel melul noonu ndax ca sax léeg-léeg sax boo moytul buñ ca tancaloo sax li ñëw xanaa kay fexe ba nga xamante ni si nit ñi dañ leen di yee dañ leen di éduquer éducation socio familial nit ki da nga koy yar da nga koy yar ci société de paix et de euh, bu nga xamante ni si jàmm ak salaam da nga koy yee naat naataat ko ci li nga xamante ni si du jóg mukk naan ma ngay teg violence kaneen ka da ngay fexe ba nga xamante ni si lépp lu xeetoo ak violence nga teg ko ne fexe ba indi les valeurs les valeurs cardinales les valeurs fondamentales xamoo loolu lañu naan yare di la wax ni yow war nga jomb lii war nga rus lii war nga waroo mën a fexe ba nga xam ni lii waroo koo def ah wax balbatiku la wax ay valeurs yu nga xam ni dañ la naan yow kat boo defee lii xam nga ni lii waxuma la dara sax man sanction waxuma la sax sanction pénale mais la sanction sociale rek dimbee daan nga ko ragal am na ñu nga xam dañ daan xëy gàddaay sax wala ñu xëy dem xaru ji wala ñu defe lu nekk ndax rek sanction sociale boobu nga xam ñoom lañ mm-hmm. violence verbale nag ñëw ji mooy juróomeelu xeet bi saaga wax ju ñaaw mm-hmm. maanaam insulte injure mm-hmm. wax la ba nga xam ni yow dootoo jar dara doot da ngay xool sa bopp nga ni man est-ce que lii jar na ko wala nangam mm-hmm. boobu violence moo gën a metti en fait dañ naan c'est un hypercute dans l'âme xam nga box la sax wala ma dóor la sa bët neew yi wala la neen et cetera léeg-léeg nga gis ko waaye nga yu muy am kenn du ko kenn du ko jàng tey boo doon euh, chiffré wala nga ñuy defal estimation euh, ci euh, la nga xamante ne yëpp nemmeeku ngeen ko ci violence yooyu ngay wax jëmee si jigéen yi à côté ñu am ay textes yoo xamante ne nee ñi ratifié nañ def nañ bu ci nekk pour fexe rek dëggal loolu ndax textes yooyu la mu waroon jur mu ngi koy jur ci estimation yi nga xam ne def na la mu waroon jur de xam nga euh, d'ailleurs sax ma profité ci sax di euh, wax jigéen ñëpp ma leen ndokkal ci le euh, 8 mars bi nga xam ne jóge nañ ci nga xamante ni symboliquement rek fenn la fu nga xamante ni si dañu fa euh, taxaw di fa célébrer 8 mars. Mm. mais moment de taxaw la moment de saytu la ak moment de xoolaat ndax fànn yi nga xamante ni si euh, kat ñu ngi ko doon téye ak di ko wax mais fan lañ ci toll. benn ba nag ci fànn yooyu moo di ne gis nga texte yooyu nga wax Sénégal li mu ratifié ci ay texte yu nga xam ne de protection et de défense des droits des femmes et des filles des droits humains sax de mm. manière générale mais kenn wax la nu mu toll. waaye naka lañ ciy appliquer ak lu waral application bi metti ak bala ngaa appliquer it foog nag ñu wax ko foog ñu dénoncer ko wala mu am ay preuve wala ñuy kii ndax justice ka xamul lu preuve nag te ah, il faut aussi ñu wax ko ana wax ja danga gis nëpp nëppal di nga gis noppi témoignage ne dan ñun bu ñu ñëwee euh, fii ci commité de lutte dinañ ñu indi dinañ ñëw nit ki mooy ñëw de ak kaam ñu wax ko ba nga xam ni mu ni man lii laay def nangam ñu ko ñu wax ko nag yee ko bu baax a baax ni ko lii ak lii ak lii daf la naan man bëgguma ci loolu de man uh, fi mu ne bëgguma dem fenn bëgguma mu jëm kaw damaa bëgg rek ngeen wax ko mu bàyyi dóor yeeg yooyu nga ne ko mi loolu na nga dem defe ji mu ni médiation la bëgg ñu def médiation comme ni nga xam ne noonu lañ ko daan defee uh, démb ak bërki démb mm. wante gis nga boo defee médiation boo toogee tuuti mu ñëwaat boo moytul dee moo cay tegg surtout nag ku nga xam ne day dóor te dóor ya du bàyyi mm. ba nga xamante ni si comme ni nga waxee <coughs> les textes sont là xam nga ni bu fekkente ni violence la dem nañ sax am ay euh, loi yu nga xamante ni si dafa nekk liñ naan euh, loi extrême loi yëpp a forte mais loi extrêmement forte la loi 99 05 du 29 janvier 99 nga xam ni dafa indi dafa modifier code pénal bi mm-hmm. euh, dugal ci ay nouvelles dispositions nga dégg ci ngay commencé dégg mutilation génitale féminine ngay dégg euh, lu jëm ci euh, inceste dégg harcèlement sexuel dégg viol mais la ca neex moo di ne dañu ne dañ ci indi sax ay circonstances aggravantes mm-hmm. lorsque violence yooyu jëm ci xale wala mu jëm ca mag wala mu jëm ci jigéen ju nga xam ne vulnérable ndax euh, ëmb na wala dara entre parenthèse mariama boobu mu ngi am nekkoon sax ci ëmb ñetti ah, mm-hmm. weer wala mu ñëw mu passé wu ci la sphère conjugale mm-hmm. diggante ay euh, way euh, dencante yi mm-hmm. gis nga loi boobu application bu jaaroon li nga xam ne war na jaar ah, ñu appliquer ko yëg ko te ñu appliquer ko ni ñu ko waree appliquer de manière effective yaakaar naa ne dina am solo trop. Mhm. mais gis nañu dem nañ ci ba nga xamante ni si bi ñu xoolee ba xam ne kat foofu ñu naan violence sexuelle viol ñu xam ni kii war nañ ko dàbbali ñu daal di koy dàbbali moo indi la loi 2020 la. 05 mais criminaliser nañ mais criminaliser le viol et la pédophilie waaw ànduñu ci mais euh, ànduñu ci déet bul wax ànduñu ci. amu ci kenn ku nga xam ne conteste nga euh, li nga xamante si. moom mooy di loi ba amu ci kenn ku ko contesté. application bi la ñuy la ñuy waxee ñoom. c'est-à-dire application bi ñëwaguñ ci mais euh, ñoom contesté guñu ko. technique loxo. condamné ko mu egg fenn ci ci ci euh, processus judiciaire bi ba pare mu fekk ni ci yoon ba enquête ba am na peut-être benn faille walla lenn lu mu dese ñu tëj innocent c'est-à-dire ñoom foofu la ñuy ragalee di wax ne est-ce que yàkkamtiwuñu rek topp jigéen yi nga xamante ne ñu ngi doon kaas ba jëmmal loi boobu te am na yoo xamante ne waroon nañ ko régler ba nopp loolu lañ naan réserve dañu émettre ay réserve dañu wax waaye amu ci kenn ku nga xamante ni si ci ñoom ñooñu dama leen suivre deman par la presse mhm. mais dégguma kenn ku nga xam ne nee na loi bii kat déedéet au contraire dañ ñu waaw mhm. daal di émettre nag eh réserve yooyu loi 2020 05 du 20 euh, du 10 janvier 2020 euh, dafa ànd ak ay conséquence dafa am euh, léegi dañ ne viol ak pédophilie dañ ko criminaliser mhm. dootu délit crime la bu njëkk ba délit la woon délit mooy infraction bu nga xam ne dafay dem ba 10 ans maximum léegi nga ñëw sax ci délit boobu daan nañ ñëw sax condamné moins de deux ans sax ñun gis nañ ko ñu condamné ci nit wala léegi sax bàyyi la. rax ca dool it gi daan nañu gis ni nga xamante ni si noonu la détention provisoire bi bu masaan am ni muy demee ak euh, ni nga xamante ni aussi instruction daaw ci am loi 2020 05 euh, bi xam nga lan la wax conséquence am dafa ni léegi. Euh, délai de prescription bi dañ ko yokk dafa dem ba 10 ans bu njëkk ba trois ans la woon. 3 ans bu ñu poursuité euh, trois ans ñu daal di ne euh, ñu daal di bàyyi léegi nag mën nga ko topp ba 10 an mais foofu xam nga magistrat yi tax ñu wax fa dañu ne. seetal ma loolu ki nga xamante ni def na vie am xam nga 10 ans dafa bëri. jigéen ji mën na fi refaire sa vie. am fi ak njaboot am fi ay yëpp ñu ne dañu émettre foofu ay euh, ay ay réserve beneen ba ñu ne euh, preuve xam nga kii euh, loi deux mille deux mille vingt bi su ma ci ñëwee ba léegi vingt vingt bi xam nga beneen kii ba moo léegi chambre criminelle la traduction chambre criminelle la xam nga bu njëkk ba assise la woon léegi nag crimin kii la peine bi dañ ko durcir dafa dem peine plancher bi 10 ans la 10 à vingt ans et pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité euh, baneen ba ñu ne nag instruction bi nu obligatoire ba pare mandat de dépôt bi nga xam ne dañ ko daan def léegi amatul durer dañ ko sans limitation de durée xam nga bu njëkk ba bu ñu la masaan la jël euh, ci lu demee noonu téye la euh, bu ñu demee ba 6 mois juge bi bu xoolee daal di ne gisul daal wala daal en tout cas nangam nga daal di bénéficier wu sax de non lieu ñu wala ñu daal lay génne wala ñu daal lay en tout cas daal lay bàyyi léegi na loolu amatul amatul léegi sans euh, namatu mu tuddati téyewutuñu durée bi limiteetuñu ko ba nga xamante ni si loolu la ci conséquences yooyu nag ak ci yooyu nag la magistrat yi taxaw ñu ne Euh, l'union des magistrats sax nag. ñoom réserve yi ñu joxe da nga jàpp ni yenn wul maanaa wala. déet euh, réserve bi daf cee amoon daf fee amoon euh, bu ñu nee preuve la fourniture de la preuve ñun preuve bi la ñu mës a jooy te loolu ñoom sax jëkkee wuñ ko ñun association de la société civile dañ ko wax. dañu ni preuve yi nañu fexe ba nga xamante ni si nañu sensibiliser pour wax ne ki nga xam ni victime de viole la wala yooyu bu mu gaawantu gaaw di détruire la preuve. ndaxte justice aussi xamul la dul preuve wax nañ dëgg loolu la te nag euh, bu fekkente ni détruire nga preuve yooyu ci lan la ñuy taxaw ba ni lii am na wala lële am na waaye nag juge aussi dafay xarañ njël ñoom dañoo outillé dañoo xarañ c'est des professionnels xam nga dañoo defaat beneen réserve ni mën nañoo fexe ba nga xamante ni si euh, ay ñoom seen euh, kii naka lañ ko waxee chantage yeeg wala manipulation wala jiiñ et cetera loolu yëpp mën na cee am ak yooyu mais c'est des professionnels xàmmee nañu bu baax ba ñuy xolleeg ba ñuy boxam instruction bu longue boobu dina tax ba nga xam ne ñoom bu ñu ko càmbaree dina euh, xool ndax lii kat présumé parce que kooku ba tey présumé la et conserve na tous ses droits sax nag euh, ci kii boobu dinañu xool ndax lii moo ko defam moo ko deful te nag toute la chaîne pénale la de l'enquêteur au juge d'instruction ba bañ lay yóbbu soit chambre criminelle soit ñu ne yow mii kat defoo ñu daal lay bàyyi euh, loolu nag euh, loi ba moom mooy xam ak professionnel yooyu ñooy xam naka lañ ko ci defee mais encore une fois man damay yaakaar na ni parce que kii bii la loi 2020 euh, projet de loi la woon ñu jox ko mm-hmm. le ministère de la justice xam ne ay magistrats ñoo fa nekk de Euh, ak euh, le ministère de la femme ñuy xool li nga xam ne xam nga loi tamit na dëppoog say aada say euh, na dëppook nit ki. réalité yi am réalité yooyu. applicable comme ni ñu ko waxee applicable et pouvent être appliqué moo tax sensibilisation bi baax ci. merci waaw madame Penda Seck mm. Diouf dinañ ñëwaat si yow si kanam tuuti ñu dem seetaan publicité.